julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji Sëriñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara sëñ Mbàkke démb bi nu yëkkati jataay bi ñoo ngi woon ci hadiisu albarra ibnu azib bi mu doon wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ku leb lay dërëm mbaa nga leble soow mbaa nga jubbanti ku réer mel nga ni ku fekk benn famille ñoom ñépp nga goreel leen tuyaaba jooju nga am ba tax foofu mbokk yi lislaam xoolal ni nim def leble ndeke leble bari na tuyaaba ndeke leble bari na tuyaaba ba alayhi salaam di ko màndaxee ku goreelub jaam te dangaa lebal kii te daf lay fay jaaxle gi mu jaaxle ba tax nga lebal ko dindi ga jaaxle ga nga dindi jaaxlem muy jullit ngay jullit loola la sunu borom di fayee waaw te mu ngay wax ne goreelub jaam man ataqa raqaba ataqa allahu bi kulli uduwin minha uduwan minhu min an naar ku goreel ab jaam ku goreel ab jaam cër bu nekk yàlla dana la ca goreel yow ma la xiyaam goreel sa bopp bi ndax boppam bi goreel sa tànk yi ndax tànkam bi goreel sa loxo yi ndax loxoom bi goreel si biir bi ndax biiram bi kullu udwin minha waaw bépp cër bu nekk ci jaam bi nga goreel rek léegi goreel jaam bu fekkee tey jii ñu ngi naan jaam am na ak jaam amut wala fu may jële jaam bu ma goreel ndekete yoo ñett yi boo ci defee benn goreel nga jaam waaw leb lay dërëm ku soxla nga lebal ko <laughs> xale lu ma fi dàqa leb ndeysaan nettiloo naa sama bor baag diw sàngam waaw ko dama bëggoon ku ma lebal ñaari million damay jënd bu oto waaw mu lebal moo ko ndeysaan may dajale rek yàlla na ma yàlla yërëm <laughs> dooro <laughs> may dajale rek ba mu matum ba mu at ak lu teg may door a am benn million takk ko yët ko ne ko maa ko ci avance waaw di saan mu delloo ma ko ni ma baal daal la yëpp loolu am njàngale lañ ci jublu mooy nanuy leble nun ñi ñuy lebalit nañuy fay rekk nag nanuy leble ñun ñuy lebal nañuy fay ndeke kon ku bëgg a goralub jaam lebleel ay dërëm wala nga leblem soow ñu ko addis bi waxee wala nga gindi kuy seetu yoon seetu yoon silmaxa yaa ngi ci dëkk bi di dox di tabarkàlla di ñibbee ko def yëf waaw ku leen teg ci yoon ndekete gorel nga jàmm ay bunta ngu noonu yoo xam ne technicien tuyaab yi ñoo ko indi waaw technicien tuyaaba yi ginnaaw leble googu mu ñëw ci beneen tomb mooy lebal ko ku jëkkoo gut nga di ko nég ndax mu jëkku loolu tam lu am solo la lebal nit ndax dafa soxla dafa soxla soixante million nga lebal ko soixante million te doo ko ci tegal nangam pour cent doo ci teg dara soixante millions nga ko lebal bu doon am ci moom juróomi atit soixante millions la lay yëpp soixante millions lebal ma ne bu doon am juróomi atit soixante millions la la amel nga def ko noonu a ah, moom mi la leb soixante millions yi moom it àdduna njatt ko ay mbiram soppi koo gut ndax léeg-léeg ci nit ñi nga leb dara ndax di séentu dara li nga doon séentu ñëwut la nga leboon fay ko dalay jafe waaw nga dem ci imaam Ablaay Ndaw ca ndànd leb ko quarante millions lu tax parce que móor xujja moo la ameel soixante million te la wax na leen le trois décembre la lay fay nga dem jël alalu imaam Ablaye Ndaw ne ko la cinq dinaa la fay la trois jot mor xuja fayu la la cinq jot mor xuja fayu la la quinze jot mor xuja la la vingt jot nga woo ko mu filtre sa numéro boo ko woyatee du la jël léegi imaam Abdoulaye Ndaw ma nga toog moom di xaar quarante millions yi nga ko waxoon ak dat ba dat ba weesu na waaye du ci yow ca murxu jëmmee la te loolu li mu yàq ci économie ci réew mi kenn xamu nu mu waaw nit dig la dara loola mu la dig tax nga am fitu leb dara moom mu la dig nag mu def koy kaf li ma taquluna maa la tafaluun li ma taquluna maa la tafaluun waaw sunu mbokk mala jamil ca Touba tey woote ci wax sa xalaat tey indi aay yu am solo yooyu yàlla na ko sàmm yàlla na yàlla gën koo sàmm day faral di fàttali loolu li ma taquluuna maa laa tafaluun xam nga ne ku ndax dafa am ku la ameel dig la ne la fay le trois bu la fayut nga am problème waaw bu la fayut nga am na dafa amoon génn góor goo xam ne dëkk ba mu nekk moo ci gën a jub dëkk ba mu nekk moo ci gën a jub ku ko dénk waxtu woo ko soxlaa boo ñëwum la ko jox waaw nee na nag góor gi daal di amub séet am ku ñëw dénk ko junni séet ba soxla junni waaw séet ba soxla junni si <laughs> di Cheikh nee na góor ga daal di jël junni ba jox séet ba naka ko siit ba jaay rekk boroom junni ba na jafeet ne ko sama junni mu ne ko toogal mu toog mu ne ko mu ne ko jubadiwu ma mu ne waaw mu ne ko adduna jubadi ji sama kaw di san suñu ceex ni nguur ga ne ko jubadiwu jubadi sama kaw sàllaw danga ma dénkab junni ma leb ko jox ko sama séet bii di san góor ga ne ko may naa la ko kon dafa baax lool lebal nit lebal nit xaar ko ba mu am ndax léeg-léeg nit leb rendiw ba mu ne woon dana fay rendiw ba agsi fala yastati te mënu ko am na nag ñoo xam ne dañ koy man mais dañ ko dul def am na ko xam ne bi nga ko lebalee mën na laa fay waaw mais dafa amul feelingu fay bor daf laa nërta fay waaw waaw waaye su fekkee ne dafa leb te munta fay hein léeg-léeg mu jaaxal nit lool ndax am na ñu ragal bor waaw am na ñu ragal bor nga xam ne bu ñu amee bor lu bor ba tuuti tuuti teele la nelaw li fekk fayuñu ko waaye am na ñoo xam ne mën nañoo dund ci bori jàmbur yi moo tax alayhi salaatu salaam su masaana julli ba sëlmal dafa daan jàng ñaan gi te di ko jàngal jullit ya allahumma inni a'udhu bika min dala'i dayni wa ghalabati rijal waaw mu ne yàlla maa ngi lay maa ngi muslu ci yow maa ngi làqu ci yow ngir ngir bëgg a mucc ah ci coonoy bor ndax bor mën naa tee nelaw nit guddi mën na koo tee mën a lekk waaw mën na koo tee mën a lekk waxale ba ci rijaal waaw bor baaxul waaw soxna soo xam ne <laughs> xam naa damay bokkam baal waaw day ñëw ci man rek defal ma ñaan ma ne ay ca mu yëkkati cinq mille jox ma defal ma ñaan mu ne ay ci mu yëkkati cinq mille jox ma ba muy trente cinq mille <laughs> trente cinq mille kon xam nga ne diir ba xaw naa yàgg waaw waaye daal benn bis la xëy si rek ne ma delloo ma samay trente cinq mille <coughs> waaw delloo ma samay trente cinq mille waaw may it nag comme nun rekk la néew ma ko lu tax déedéet question boobu amoo fa amoo fa yoon ma dugg ca néeg ba yàlla def ma fekk fa trente-cinq mille ma ñëw di ko jox muy compter ba mat ma ne ko ay ci waaye gis nga bor nun la mel dalay tee nelaw guddi léeg-léeg du am appétit rawatina bu dee bor bu rëy rawatina bu dee bor bu rëy te jaamu yàlla gi nekk ci fayal nit bor kenn xamu nu mu toll wala baal ko ko waaw wala baal ko ko hmm? ndax léeg-léeg nit ki yore ay bor dëkk bi tàmbalee xat ci moom waaw yore ay bor dëkk bi tàmbalee xat ci moom bunt yépp tëju léeg-léeg ma wax ko gaa yi may àndal ñoom alfa yàlla yàlla sàmm leen ma ne leen su fekkoon nii ngeen di def du ngeen ko def koñ bi lay dugg am na kër googu su ma fa duggee lépp vingt mille dañ may lebal ma dugg ca gee leb trente mille ñu lebal ma ma dugg ca gee leb cinquante mille ñu lebal ma ma boole ba mat ma fay luyaas waaye su ma lebee lebati ba koñ bi daj day xat ci man kon damay tuxoo jëppal dem xaar yàlla toog fa di ko xaar ci ñoom Ibrahima Diallo waaye foofu tam su ma ko lebee ba mu daj dama fay jógee dem Kër Masaar day mu jàgg rek ñu dégg ñu ne ma nga mbuur moo tax yëf yi doy na waar waaw yëf yi doy na waar ma ne léeg-léeg nit ki leb bor heure ba mu ko waxoon na ca la koy fay heure ba agsi dat ba agsi te munta fay te munta fay waaw moo tax mbokk ma daa ñëw ca mbokk ma ne ko dama dama lay leb mu ne ko ñaata nga soxla mu ne ko soxla naa trois millions mu dugg néegam takk ca benn million jox ko ne ko bii nag lébaluma la ko dama la ko may mu ne ko bii lébaluma la ko may mu ne ko li tax mooy dama la koy bañ a lebal nga ñàkk am bañ a ñëw ma ñàkk million ñàkk la bala may ñàkk million ñàkk la nag naa ñàkk million te am la ci def defkat yu baax yooyu yal na yàlla fay leen waaye hmm? wallaay yal na yàlla fay leen mu ngoog moo tax sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon ci noonu wax ni man sarrahu an yunjiyahu llahu min kurabi yowm alqiyaama fal yatan fal yunaffis an muassirin aw bidaa anhu aw kama xaala nee na ku bëgg yàlla musal la ëllëg waaw ku bëgg yàlla musal la ca njàqare yowmal xiyaama ñu ne waaw mu ne dimbalal ku nekk ci jafañ-jafañ dimbalal ku nekk ci ay jafañ-jafañ ci waaw waaw ku bëgg ëllëg yàlla njàqare nekk yomal xiyaam musala ci yépp dimbalal ku nekk ci ay jafañ-jafañ te nag loolu dana yomb léeg leen ci pénc mi ci ko ko yàlla jàppandal waaw moo tax ki nga xam ne moo leb ki ko lebal lebal ko fay jot amut lum faye mu di ko xaar loolu mu koy xaar bët bu set tuyaaba ci moom benn bés bu ne tuyaaba la ci ki leble woon xaaj bi waaw nee na alayhi salaatu wasalaam man andara mucsiran fa lahu bi kulli yawmin mithlu sadaqa nee na ku lebal nit xaalis mu war laa fay novembre novembre jeex mu dugg décembre bés bu ne ci bi bi nga ko muñalee bés bu tega ca dat ba rek am nga tuyaabay sarax bés bu tega ca dat ba rek am nga tuyaabay sarax maanaam tuyaabay sarax lu toll ni la nga ko lebal da nga ko lebaloon six millions novembre la waroon na fay novembre jeex na bés naka tey ah, te fayu la ngeen dugg décembre bés bu ngeen romb rek te soññoo ko bés booba am nga tuyaabay ku saraxe six millions yi nga ko lebal bés bu nekk nag bés bu nekk nag ba baa ngay àgg 31 décembre si six millions fois trente trente un xaalis la de waaye loolu lépp lislaam day soññ ak euh, ñaax ki leble mu mën a muñal kim lebal waaw mu nga wax loolu addis la yu am solo yu ñëw lahu bi kulli yawmin sadaqa euh, qabla an yaxulla ad dayn fa isa xalla ad dayn fa fa andirhu fa lahu bi kulli yawmin mithlayhi sadaqa kon nag lebal nit mu toll ci fay fayu la ndax da ko mënut jamono ko njat loolu am na solo moo tax borom bi subhaanahu wa taala soññ na ñaax na ñi nga xam ne ñooy lebal faqir yi ñi nga xam ne ñooy lebal faqir yi soññ na leen euh, réew yi it léeg-léeg nga gis réew moo xam ne day lebi moroomum réewam wala mu dem ci sàq mi waa àdduna bokk mu lebi ca mu lebi ca ñooñu nag du ñu wut tuyaaba ci liñ lay lebal déedéet daf cay am yuñ cay gàll yooyu buñ la ko gàllee léeg-léeg mu saf ci sam pénc mu tax borom bi tabaaraka taala soññu réew yi nit ñi faqiir yi ak ñiy leble ku ci nekk boo lebalee nit boo ko mënee xaar ba mu fay la looloo gën te bañ di ko teg yenn yi sunu borom nee na wa in kaana suu usra fa nasiratun ila maysara wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum taalamuun mu ne soo lebalee nit jafeñ-jafeñ jàpp ko ba mënagulaa fay nee na nga dimbale ko muñal ko ba jamono soppee ko isaan lebal nga ko waxtu jot na mënulaa fay nga ne kon baax na nañ la ko puusal date bi ba le quinze décembre ñu àgg ca munta fay nga ne kon baax na nañ la ko puusal ba le trente maa nga ci mun laa fay nga ne kon nañ ko pousse ba janvier san waaye sunu borom nee na boo ko saraxoon bor bi nag <laughs> boo ko saraxoon bor bi waaw alaaji jiili mbay euh, yal na yàlla yërëm ko alaaji jiili mbay yal na yàlla yërëm ko gërëm ko yu ma saam sunu benn xarit àndandoo mu woo ko ne ko looy def mu ne ko nangam ne ko loo ci am mu ne ko weer wu jot nangam mu ne ko def nga commerce mu ne ko waaw ca jamono jooja mu takk fukki million jox ko ni ko tal barab bi nga gën a taamu ci dëkk bi ñu dox cee tànk ndax nga jot ca kooku daal di tàmbali di def commerce grossiste la ñu doxalee at jàpp ñaari at fekk def na ko woon fii ak juróomi at bul ma avance isaan ñu doxal am at jàpp ñaar mu woolu ko ba mu ñëw mu ne ko këyit ga ma la joxoon ba nga lebee bor ba mi yow mu ne ko waaw ëndaalu ma ko ma nga ca kër ga mu ne ko demal jëli ko mu indi ko mu ñëw mu jox ko ko mu xotti ko waaw ko lii nag mu ne ko dama la koo may di san allahu akbar fukki million yooyu ma la lebaloon moom lay xotti këyit gi nii wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum taalamuuna bu ngeen amoon xam-xam dangeen xam ne ki ngeen lebal munta fay ngeen di puus dat bi ba mu yàgg te taxul mën a fay nga far ne ko diw mu ne nga ko baal naa la may naa la ko sarax naa la ko sunu borom ne na ko xamoon ci loolu ngay liggéey hmm? waaw Usmaan ibnu de xamoon na loolu Usmaan ibnu Affaan xamoon na loolu Abubakar Siddiq xamoon na loolu waaw loolu sunu borom mu ngi ko surtout albaqara saar wu yéeme woowu nga xam ne tabarkalla lu leen ca biir hmm? waaw ibnu xajar wala ibnu jarir rahimahullah nee na wa an tasaddaqu bi ruusi amwalikum ala hada al mu'sir xayrun lakum ayuha al qawm min an yantadiruuhu nee na baal ko bor ba moo gën fuuf bàyyi ko ba mën a fay bàyyi ko ba mën a fay nag baax na ndax sa ala la waaye baal ko bor ba nag ah fala raay ba tiina nag waaw in kuntum taalamuuna waaw ah. su ngeen xamoon sarax walla sarax nit ku la ameel bor féex gi muy féex <laughs> ki la ameel bor nga sarax ko bor ba féex gi muy féex tuyaaba tollut ni moom tuyaaba tollut ni moom eh, mbokk ma daa ñëw ca morom ja ca ubaat ibnu walid ibnu abdi ibnu ibnu samit neena dañoo génnoon di jàngi ba ñu génnee di jàngi nee ñu dem ci benn saxaaba boo xam ne ca lansaar ya la bokkoon këram la ñuy jàng ji këram la ñuy jàng ji mu ne ba ñu demee ca kër ga di jàngi tase faag kuy lebsi nee na kay lebsi joxe garanti euh, ñu lebal ko nee na ki ñu lebal mënuta fay tax mu nar a bàyyi jàng ka ko lebal may ko borba ndax mu mën a yow continue di jàng am njàngam mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot beneen bind nga noonu ci bor jeexaluñ ci nag incha allah waxtu wee toll ci jeex yan yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne tax yor seeni këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bii c 3 la ci bitim réew yàlla na ñëw li ci biir rew mi yàlla na jar yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara kenaan doon coxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tataat wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu